Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à ces jeunes femmes Il y a Khamni, foo ci dans le secteur informel di Sen, Dole, di Sandaga Bodjare Koloban, Bodjare Grandyov, Bodjari Grand Yoff Liberté 6 Touba Mbake, Touawan, Kaolack fépp Sénégal monsieur le ministre euh, l'artisanat c'est plus de 200 cours corps de métier on part du maçon au boulanger du taximan à la Islis en pensant par le photographe. C'est plus de 200 corps de métier qui emploient des millions. Des, millions, moo xam ñoo xam ne dañ leen recensé xam ñoo xam recensé ñu leen moo xam lu ñu formalisé wala formalisé Et monsieur le ministre si les chiffres sont bons l'artisanat euh, représente plus de 10 de notre économie monsieur le ministre les raisons yi nga xam cette ñoo direction ak yi nga xam ñoo ci service ministère monsieur le ministre nous ñoo ma monsieur le ministre, nan la mëna amé artisanat nous avons amé solo ñu défal un budget de 6 844 milliards sur un budget de 6 000 milliards et bo démé en ce moment conseil économique et social ak STC nous ngi am ñu de rek 15 milliards Il y a carrément ci ambition monsieur le ministre bo ñëwé ci budget bi bo xolé li nga xamné mo coordination pilotage à coordination Nous ci 695 euh, milliards 695 milliards et boo demee rubrique secteur informel bi 750 milliards et 750 euh, millions autant pour moi te avez la différence entre les deux ça fait 54 millions monsieur le ministre transformation et secteur informel nous nous un solo tey boo le moom ak coordination bi différence de 54 millions damay avez ba xam manque d'ambition là wala pour nous, nga xam ne des millions de gens yi nga xam ne ñu ngi nekk ci secteur boobu noonu monsieur le ministre les jeunes de Dakar les du Sénégal ñoom ñoo ma yónni ne tey lan nga am comme projet yu concret yoo xam ni surtout pour les jeunes pour les deux millions cinq cent jeunes de Dakar yi nga xam ni bëgg ci sa ministère bi bëgg nañ ci li nga xam ni moo nekk lu mën a changer ci seen vie yan projet concret nga am ci ñoom te xam naa ne loolu bëgg monsieur le ministre les menuisiers ñoo ne ñoom il y a six ans le président Macky Sall moom moo waxoon que ni lu ëpp ci commande publique bi tey dañ koy jël jox ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk menuisiers yi te tey boo xoolee lu ëpp tey ci loolu ñi nga xam ne ñu ngi nekk dans l' administration ak fépp dafa nekk loo xam ne dañ koy importer di ko jëli ji et que menuisiers yi ñeneen boobu ba tey ñoo ngi xaar que bu fekkee ay slogan la voilà il veut il pieux vous êtes fort pour ça mais quand il s'agit de transformer ça en acte gars yi dañuy toog donc monsieur le ministre ministre yi ñeneen forage gisaguñ donc loolu bëggoon une réponse ma ci et merci beaucoup. merci la parole est à notre collègue Bakary Diédhiou